aca finaalo yàlla wara ba dem na keng waxum ak dem na ndeñ taali ma ne lu waay doon jaay tey mu lamb xuutar xuutar be xaabar xaabar bi ku ci yàqoon waxu jàmbur di ko defar boobu ba tey wante bi diggante Lamine Petit ak ki nga xam ne moom mooy Paul Mante Lamine Petit Sélé woon ñu gannaaw Paul Mante moom lañ jàkkaar lool Lamine Petit Sélé kambo ko Paul Mante Mbour lépp ci petite côte bi la moytul waaye damay bëggee waa campement Ngekoox nee naa la kas duma ko fàtte taalibe sëñ Babacar Si bi bili fit maa ngi koy bëggee ndeysaan yaa yaa ko ndeer waa kono yaat waa cuka ndeer waa Paul Manti daan na Lamine Petit Sélé Paul Manti daan na Lamine Ousmane Tite am na Lamine Petit Sélé